dans nos impressions, c'est qu'on n'a pas démérité, on a fait un très bon match. Bon, vrai qu'on a encaissé des buts, on a concrétisé. Parce que le problème en est que, ce que j'avais dit aux joueurs, les occasions de but, on les marque. Si les marque pas, des fois, ça nous cause des préjudices. Et on l'a fait. Aujourd'hui, on a fait le maximum. On a fait aussi le plan aussi pour euh, les gosses, pour leur dire que c'est leur dernier match, il faut le terminer E durant cette a été déterminant durant cette rencontre ouais, Durant cette rencontre, qui a été déterminant, c'est le fait de leur dire la réaction. Il se réagissent. En même temps, il faut qu'ils marquent aussi des buts. Euh, parce qu'une équipe, pour gagner un match, c'est ce que j'ai dit tout le temps, il n'y a que trois choses. Il faut gagner les duels, marquer des buts et ne pas encaisser. malheureusement, on a encaissé deux buts, mais l'essentiel, c'est d'avoir les trois points. ce qu'on a travaillé presque hier, on ne on s'est pas entraîné, on a, on a, travaillé aussi devant les buts. C'est l'essentiel. Parce qu'on on trop d'occasions de but aussi. hier, on a fait des petits travail, mais ça s'est réalisé. waaw match bi tey nag match la boo xamante woon nag euh, wa Kéema bu Kolda du woon match bu facile match bu yomb mais il s'est trouvé que aussi dañ koo bëggoon dañoo poussé woon xale yi ne leen quel que soit en beauté parce que deux défaites aussi ci équipe bu mel ni Manko dañ def le maximum rek bousee leen bousee xale yi xaw a changé aussi équipe bi gëm loolu leen ne yéen la waaw war ngeen ko mën a gagné ci tamit loolu la ñu bousee xale yi def leen ay réaction euh, gën leen a ñaax daal ñoom ci ci ci yooyu condition yooyu lañ ñëwee gagné match seen dugal ngeen ñett ci match bi nañ xam lan moo déterminant tey ci biir rencontre loolu rek match bi boo koy gagné y a que trois choses moom laa wax tout temps ne match boo koy gagné il faut il y a que trois choses mooy il faut gagner le duel marquer des buts et ne mais malheureusement aussi encaissé nañu ay mais gagné trois points rek lañu bëggoon ni ak nu mu munti demee woon même bu ñu gagné woon benn sax dañuy gëm ne trois points yi terminé nañu en beauté daal lañu bëggoon et puis Manko aussi équipe boo xamante ne novice mu ngi doog a ñëw ci phase nationale loolu tamit dañuy ñëw aussi pour jàng mais bu ñu amee tamit lu ñu am dañuy jël loolu loolu lu ñu am moom dañ